hésitation bi ak seen xëtër xëtër yi ko gis xam ne euh, jigéen ku am solo la ci sunu société ak sunu culture. parce que yàgg nañu toog fii di woote ci turu Yewwi Askan Wi gis ni di ngeen ñëw mais gis nañ ni vraiment engouement bi ngeen ci àndal war na tax ñu gën a xoolaat sunu taxawaay ak gën a xoolaat sunu gëdd ci ci sunu société bi ñu nekk. di wax ne nag réew mi yëngu na te ñun en tant que ay jigéen. mais nekk tamit ay yaay nekk ay ay membres prenantes des familles sunu wareef mooy bu Sénégal yëngoo ñu taxaw jàkkaarloog Sénégal euh, président Macky Sall ak régime ay at a ngi nii ñuy jéem ci fànn bu ne ci yoon wu ne taal Sénégal yëngal Sénégal fu ne nag xàmbee nañ fi taal bi boor bu ne jaaree nañ fa pour dëkk bi yëngu jaaree nañ ko ci sunu ay euh, baaxu maam muy sunu ay ethnicité sunu culture pour déstabiliser réew mi ba tey ñun opposition responsable ñu ne tekk di déglu jaare nañ ko ci ay ngëm-ngëmu nit ba léegi ñun askan wi ñu ne tekk toor jaare nañ ko ci vie privée ay jàmbur ba léegi rek ñun ñu ne tekk toor ñu jëm ko jaare ci justice jëm ko jaare ci arbitraire ci lu ne rek boor bu ne jëm nañ faa xambee daay bi su tey bii nag li waral suñu toogaay bii mooy danoo encore une fois parce que nag encore une fois lay wax parce que du guleet ci régime président Macky Sall ñu instrumentaliser jigéen pour féewale askan bi ñu ko bëgg a jaarale si jigéen suñu moroomu jigéen loolu moo waral suñu taxawaay bi ñun de foog naa ni ci suñu aada ci suñu yar ci suñu teggin amul kenn kuy nangu ñuy jël jigéen di ko violenter amul kenn kuy nangu ñuy métital jigéen loolu yeeyu askan wi du ko nangu tey du ko nangu ëllëg waaye li tax ñu war a gën a mën a bañ méttital boobu mooy instrumentalisation jigéen bi nga xamante ne régime Macky Sall mu ngi mu ngi di ko def te ñëpp teg ci seen bët. 2011 jigéen lañ fi jël indil ko teg ko mu teg ay tuuma góor ñu bëgg a taar réew mi tey ñu yëkkatiwaat jigéen mu laal pas-pasu doomu aadama ñu bëgg ci jaar taar réew mi est-ce que ñun dañu war a nangu loolu. est-ce que ñun jigéen ñi dañoo war a toog ñu accepter ñu jël débat bi. indil ñu ko ci benn domaine boo xamante ne débat bi nekkul foofu parce que débat bi du diggante góor ak jigéen dem nañu sax bay laam-laame suñu parité ak sunu ak sunu ak sunu xeex yi nga xamante ne xeex nañ ko fi démb ak barki démb gis nga ñun jigéen ñi tey parité bi ñu laaj laajuñu ko pour ne dañuy weddi suñu taxawaayu góor de laajuñu ko pour dañu ne góor ak jigéen ñoo yem dañu ko laaj parce que dañu bëgg am les mêmes droit am les mêmes devoirs am les mêmes opportunités kon nag parité boobu tey buñ ñu ko opposé ci jël ay jigéen di leen toroxal parce que xam nga lan mooy toroxal jigéen mooy lu toll ni assemblée nationale ñu fay waxee fulla di fa wax fayda di fa voté ay loi ay ponkali góor je pèse bien mes mots ay ponkali góor làqu ci ginnaaw ay jigéen làqu ci ginnaaw ay jigéen di leen instrumentaliser di leen xasloo di leen saagaloo di leen sayiteloo di leen indiloo ay problème lépp rek ngir lan ngir tout simplement opposition bi bañ a def liggéeyam kon nag en tant que jigéen méttitu nañu li am démb mais en tant que jigéen gën nañu mettitlu li nga xamante ne foofu la ñu teg place su jigéen jamono ji ci assemblée nationale. teg ko nag ci Sénégal gi yëpp parce que nag histoire politique du Sénégal depuis Caroline fay ba léegi ay jigéen yàgg nañ fi jaar te benn jigéen mësta nangu ñu jël ko di ko instrumentaliser benn jigéen mësta nangu ñu jël ko def ko arme politique di ko xeexee ak di ko yëngalee réew euh, ñu ngi mastawu nag wax dëgg yàlla soxna soosu ñu ne dafa am lu ko metti bu fekkente ne am na lu ko dal ñu ngi koy mastaw te di ñaan yàlla. mu yàlla uuf uuf ay tànkam mu jóg ci jàmm ak salaam parce que tamit ñun suñu diggante jàmm rek moom moo fi xaj mais ñu di ko ñaan moom ak i ñoñam ñu seetaat seen taxawaay ñu xoolaat seen taxawaay ñu xoolaat seen doxalin ñu xam ndax ñoom war nañoo nangu ponkal yooyu nekk seen ginnaaw au lieu ñu taxaw ñoom xeex ñoom ñu leen di xeexloo di leen di loo xulooloo démb dégg nañu ay jigéen ñu saaga ay jigéen ñu yëkkati kaddu yu ñaaw saaga ba saaga seen bopp ndax lan lu neex ay xale góor kooku benn jigéen waru ko nangu mbir mi du combat jigéen ak góor ñun duñu nangu loolu duñu nangu kenn ku ñu utiliser jël xeex bi defaat ko xeexu góor ak jigéen xeex bii xeexu injustice la injustice boo xamante ne dafa am ci biir assemblée nationale te suñu parlementaires yi dinañ ci ñëw wax leen lañ fay dund parce que nag tungu ne du teew ñu nataal waaye xeex bii itam xeex la boo xamante ne mooy progression violence bi ndax violence verbale bi nga xam ne gis nañ ko ci assemblée bi bi assemblée bi ubbee ba léegi moom moo jur lii tey démb te olof Ndiaye danaan ku artuwul di nga atte olof Njaay danaan bu ñaari nit jotee dangay xool ka tooñ nga teg ko ci yoon balaa ki nga xamante ne dañ ko tooñ muy fayul boppam te nag ñun ay sénégalais lañu ñun ay jullit lañu dafa am loo xamante ne fii lañu ko fekk mu neex ñu mu naqari ñu fii lañu ko fekk dafa am des limites en ne pas dépasser bu fekkante ne assemblée nationale président bi def na rôle am ca bam ko war a defee mooy rappeler règlement intérieur képp koo xamante ne jéggati na wàcc na yoon kon tey xëy na tey li ñu assisté démb du ñu ko doon assisté dinañ ko doon mën a def l'économie de cette violence là duma ci sore trop dinaa bàyyi sama naataango jigéen kenn ku nekk dugg ci sujet bi nga xamante ne moom la indi pour firndeel leen ni lii nga xamante ne moom moo nekk di am c'est une succession de violence boo xamante ne commencé wul ci jigéen du du tàbbi ci jigéen te ñun jigéen ñi ñu nangu itam ñu jël tey li nga xamante ne mooy sunu ay année année de combat ñu bëgg ko jël massacrer ko ndax lan des gains politiques ndax lan quelqu'un qui veut se pérenniser au pouvoir ndax quelqu'un qui cherche le chaos qui cherche à déstabiliser ce pays-là et qui compte nag sur les femmes j'invite nag les femmes de Benno Bokk Yaakaar parce que dégg naa leen sànq ñu naan ñu ngi interpeller le président Aïda Mbodj d'ailleurs j'en profite pour wax leen ne ñàkk teewam fii du ragal du daw de dafa nekkul Sénégal moo tax teewu fi parce que elle est assez ci suñu wet fii parce que ñun dañoo gisul lan moo a mën tax ñuy am lu ñuy seet suñu bopp parce que suñu taxawaay dara wàccu ci ces femmes là nañu xoolaat seen bopp na nañu xam ne l'histoire va retenir est-ce que ñoom war nañu accepter à leur sein ñuy bàyyi ay jigéen ñoo xam ne seen argument mooy xaste mooy saaga mooy wax bu ñaaw kenn mënul cautionner nit yëkkati loxo teg ko ci kaw nit wante kenn mënul cautionner nit taxaw di saaga pas-pasu nit Sénégal nag bala euh, du ñu atte duñu duñu artu xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam mais ñun on est droite dans nos bottes et on les invite elles à regarder leur comportement ñu xoolaat seen bopp ñu xoolaat seen taxawaay donc je vais donner la parole à Sokhna Ba euh, qui a fait hier une excellente euh, prestation au niveau de l'Assemblée nationale et qui était là-bas depuis le début qui va aussi vous dire vous parler de ce qu'elles subissent en tant que femmes à l'Assemblée nationale et aussi tout simplement la féliciter parce que euh, bañ a dugg ci débat yi moo waral comportement bi yëpp parce que vous avez vu comment les, les, les députés de Yehu Askan sont en train de mener ce combat. Et puis je, je, je, je propose, j'en profite aussi pour vraiment féliciter tous les députés de cette 14e législature. Parce que certains essayent de profiter de ça pour dire que ce sont des députés de substitution, que ce sont des députés par défaut, que ce sont des députés qui par suppléance. Je dis que ce sont des députés qui sont en train de faire un travail qui n'a jamais été abattu depuis l'histoire politique de ce pays-là. Parce que chacun d'entre eux, à chaque fois qu'il prend la parole, les Sénégalais se retrouvent dans ce qu'il est en train, dans ce qu'il dit. Donc nous voulons les féliciter, nous voulons les encourager. Donc, Sorna, à toi la parole.